jërë ngeen jëf euh, ami téléspectateur people 221 ñi siibu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réewum Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm tey nag ñu jàkkaarloo koo xam ne damay wax ne euh, bokk na ci nga xam ne ndaw ñi dañ koy déglu mu di Cheikh Baye borom solution fas yéene Cheikh moom waxtaan ci wàllu actualité waaye ci wàllu ñaan aussi sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre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 Euh, xaw a indi coow lu bari ñenn it ci nit ñi xaw a tiit. Hmm. Euh, sa jàngat ci loolu bala maa ñëw ci li ci des. ah affaire bi comme meeting la du marche. non non la marche bi mooy suba. Ah. procès bi mooy gannaaw suba mais damay njëkkee ci meeting bi tey. meeting bi ah tey mooy meeting bi. waaw mooy marche bi. waaw gannaaw suba mooy lan. Euh, procès bi. procès bi. waaw mhm. ah, man de foofu li ma ci wax rek lenn la. marche bi ci lay wax comme tey moom du meeting. waaye ala kulli xaalin li ma bëgg askanu Sénégal xam ko mooy ne. Mhm. booy jug di marche da ngaa war a xam yan biit mooy tax ngay marche. Mhm. man duma nangu benn politicien ak comme mënta doon moo xam nga nekk au pouvoir. Mhm. wala nga nekk opposition. man opposition la. troisième mandat bokk na ci li nga xamante ne man dama koy xeex bëgguma ko te am naa si ay raison mais opposition bi tamit damay wax ak ñoom. ndaxte dem naa ba ci biir ma gis nañuy xeexee combat bi ak la war a doon combat bi bokkul. Mhm. ndax combat wu personnel laa gën a gis na ñoom moom la ñuy xeex jamono jii nii. opposition bi waaw. parce que tey bu fekkee ne marche déjà posté sa loolu sax sama Facebook di xool jeunes yi ba xam ba léegi ñu ngi conscient wala ba léegi des na. Mhm. bitum marche dañoo war a xam lan moo tax ñuy marche. marche dafa war a nekk dund bi dafa cher. Mhm. marché dafa war a nekk ndox dafa cher courant dafa cher. marché dafa war a nekk suuf kenn mënatu koo amal si si dëkk bi fii. marché mu dafa war a nekk mooy jeunes yu bëri ñi nga bëgg a takk soxna amuñu ko. marché dafa nekk jeunes yu bëri ñi ngi gàddaay di dem jël gaal di dem di tukki. man foofu laay xaar ñi teg marché bi ne foofu la. waaye ay diw moo ma waxal diw te du dëgg ñee la indi ay preuve ngay muusantu di teg ay xel naan da ngay marche du ma ko encouragé benn yoon. gis nga Sénégal dëkk la boo xamante ni képp ku ko bëgg a tabax danga ko war a tabax ci dëgg. Mhm. gis nga politiciens yi liñ nekkee nii di manipuler nit yi ñëpp laay wax na bàyyi ma ci kenn. Mhm. ndax politiciens yi politiciens yi seen jikko seen yëpp yëpp manipulation la. Mhm. manipulation mooy lan. dama toogoon ba mu yàgg may poser sama question poser benn question sama bopp di laaj lan mooy politique. si laa dem gëstu de xam lan mooy politique ba ma ko xamee damaa xam ne ñoom ñëpp. ñoo yem. am na ñu si tene nag waxuma ko waaye nag li gën a am solo mooy bu ñuy xeex dara da ngay gis ne boo demee si dëkk tubaab yi ku mel ni France ku mel ni Amérique wala dëkk yu nga xamante ni yëpp démocratie dafa dox su ñuy xeex dara da ngay gis ne dañuy xeex kat parce que salaire dafa wàññeeku. dañuy xeex parce que quatorze nit dee woon nañ si marché bi. Mm-hmm. waaw lu tax loolu xeexuñ pour loolu. lu tax xeexuñ cotisé wuñ ne ñi fa deewoon nañ dem seen waajur yi jox leen ay xaalis ndaxte sonn nañ sa waay sénégalais lan moo leen daal. mais tamit est que jàppoon ni Ousmane Sonko bu nekkee day def marche personnelle te yàlla dénkoon ko ay ndomba tànk. waaw oh. mel ni impôt demeen ak yeneen ak yeneen. Hmm. te foofu noonu bu nekkoon intérêt personnel la est-ce que du yem foofu noonu. Ousmane Sonko si cadre si boppam maanaam moom impôt au domaine lu mu fa nekkoon luñ ko mos a dañ ko mos a dénk dara si alalu réew mi pour mu gérer ko wala. xam nga Sénégal tamit dañoo neex Ousmane Sonko mosta gérer dara xaalis mosuñ ko dénk dara ci dëkk bi ne ko gérer ko mosta am. dañ mhm. bàyyi si waxi caaxaan yooyu ñuy wax gis nga politique nit mun nga ko def mais da koy def avec dignité. Mhm. pas ñi ñuy toog fi nii di mën a gaz di nax yooyu ñeneen lañ mën a nax mais am ñoo xam kenn mu leen a nax ci yooyu. impôt demoon képp ku fay liggéey mooy lan la mooy yow dañ laa dénk comme comme table naan la kiyal mhm. toppatoo lii comme yéen seen télé bi mun nañ la kaa dénk na la toppatoo lii ko war a génnee xaalis ko loo dafa nekk. balaa ngay wax ne kii dénk nañ ko dara. mooy faaw ñu dénk ko état. wala ñu dénk ko yor benn DG. wala genre yu mel noonu yoo xamante ni dafay dajale ay milliards ñu jox ko ko ne ko gérer. kooku lañ doon mosuñ kaa dénk dara amul benn expérience politique. Sonko waaw amul benn expérience politique. am na fit nag sénégalais la citoyen la. am na droit mu taxaw ne dama soxla sama dëkk laa moom je suis d'accord mais nag ci biir taxaw ne dama bëgg a jiite sama dëkk dafa am ay nit yoo xamante ne dafa ànd ak ànd ak ñoom ñu entouré ko te amuñu xam-xam ay cuune lañ léegi-léegi da ngay dem ba mu yàgg yow Sonko ci boppam da koy yërëm parce que fit rek yoru àdduna bi de àdduna expérience la ak dal ak xam-xam bu wér nit nag ci àdduna heure bu nekk mën ngaa jàngee ci li xew ci àdduna bi ngir nga am xam-xam tey ñu ko entouré bu fekkoon ay borome xam-xam lañ man dana nekk loo xam ne dana ma gën a neex mais gis naa ne ni muy doxee ne ak système bi lu si ëpp daf koy yàqal ndax combat yi mu dugg nii yëpp loolu ñàkk ay conseil moo ko si dugal Sonko waaw wax dëgg te yàlla tax nga xam ne ñàkk ay conseil moo ko ci dugal ñu ko entouré ñu si ëpp musibaam rek lañ ko bëggal parce que xew na ñi profité si xew ba pour am si ay buzz mhm. pour defar si seen affaire kooku nag moom moo war a taxaw def jàngat ci boppam xool li ko topp ñi ko topp par inter ak ñi ko topp pour dëgg. Mm-hmm. man loolu laa gëm. Mm-hmm. lii am na nu si doom amee ay conseil dëgg. wallahi du fi yegg si. lii lu mos am si Sénégal un opposant boo xamante ne mooy leader opposant taxaw ci ñàkk fayda ñi naan diw yaa ko waxal nangam. Mm-hmm. indil ay preuve yi ngay toog fi di woote ay manifestation ay nangam mais c'est dommage. parce que loolu yëpp cuune la. kanaa man mu liggéeyu si état sama xam naa loolu yëpp cuune la parce que diffamation koo ko daf koo tuumaal am na droit suba suba mu pelante la loolu soo dafee erreur da ngay taxaw ne erreur nga nga passé si loolu gis nga nit du rëy waaye loolu ñàkk conseil koy waral nag moo tax ànduma ci li muy xeexee mbir mi d'accord naka nga gisee wuy ji bi mu war wuy ji gannaaw suba wuy ji bi na dem wuy ji te génne ay preuve laa gën loolu laa koy am lu mu koy dénk ndax doo fi nekk fii naan <clears throat> Sénégal amul justice te amul justice boobu noonu tey yaa ngi taxaw tey di def méga meeting. Uh-huh. lu tax nga jël sa sa këyit bind si adressé ko préfet. Uh-huh. xam nga ne am am na ay ay mbir yuñ teg ku bëgg a def dara foofu ngay jaar. Uh-huh. lan moo tax nga bëgg a def marché parce que jox nga ko préfet tamit bind nga loolu yoon bu amutoon du mën a am ci dëkk. yoon nag pour mu taxaw ci dëkk doon dëkk ñun ñëpp koy defar. ñun ñëpp ñooy état état du ay président Macky Sall du ay Sonko kese de état ñun la tey li ñuy bàyyi bàyyal ni du ko bàyyi mii daf lu ko neex mii daf di dugg ci lu ko neex ëllëg ba bés bu fi doonee dara danañ ko fay borom est-ce que loolu kañ la Sénégal di di développé man foofu laay xalaatee ak foofu lay waxee dafa am loo xam nañ ko waxtaan man ak keneen koo xamante ne dama amante ay yoon da ngay dem ci yoon te yoon kenn mun ta waxa a wax a wax ba diglante ak moom dara ne doo ko dem loolu amul ci àdduna gambi bi bu gën a doon gambi dëkk bu ndaw amut fa loo am lante yoon da nga dem diglante yoon par force la loolu moom su ba mu xam ko du man màkkeew du ay affaire Macky Sall ay affaire yoon doo jël ay dossiers yoo xamante ni di ko politiquer loolu loolu loolu du yoon Mhm. loolu moom bu ko xalaatee sax man encouragé wu ma ko ci loolu tax na denc yooyu denc. Mhm. tax na politiciens yi moomuñ dëkk bi. Mhm. ban politicien moo fi toog carrément ne moom lu ko neex lay def. ak koo mënta doon tey Macky Sall bi fi nekk tey jii nii képp ku fi toog ëllëg yoon moola may nga toog nga saytu ko. lépp lu fi mbokkam daf nga jàpp leen tëj leen. yoona la ko may. kon loolu mooy yoon nañu wax dëgg dëkk ci dëgg lañ koy tabaxee. waaye duñ ko tabaxee ci ay parpolo ci ay wax yoo xamante ni du dëgg. parce que Sénégal dañoo sonn dañoo xiif dañoo sonn moo tax lépp loo leen wax rek. xam nga di xeex Macky ba xamatoo yow li ngay xeex. loolu erreur la. Mm-hmm. am na solo trop torop may ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu ñaan. Mm-hmm. wàllu ñaan fi may njëkkee ñu jëm ay élection mm-hmm. euh, tey sa gis-gis ci kan nga jàpp ni ci wàllu baatin tey war ngaa gis ni kii war naa mën a yor réew mi. balaa boobu li ñuy sant yàlla rek mooy ne dañuy féliciter Lions yi. yi jël coupe bi ah, am na solo macha allah ñu ngi leen si temps yii si coupe du monde bi am na benn sorte bi ma fi defoon ma ne bidiwu Sénégal ci wàllum football. tànk yu sori yu gudd la ci am. lum góorgóorlu lu ndaw rek am ci ndam. waaw loolu bañ koy wax am nu ñu koy wédd ak nangam la waaye bañ koy wax jubluñ sax. Mhm. pour ndamu ci wala nangam la. Mhm. dafa am loo xamante ni baatin la yàlla duñu ko wan. te loolu lañ gis ne carrément senegal mhm. lu dul football Sénégal lépp lu mu bëgg ci àdduna bi su si dafee Pastef da koy am. lii yàlla dafa nakkal Sénégal. Hmm. il faut sénégalais ñi leen jàngal loolu. Hmm. ñi xamal leen loolu ñu xam ko loolu dana tax. sénégalais bu gën a ndaw boo xamante ni doon a gudd dara sax doon a góorgóor pour doon dara. Hmm. man ci combat boobu laa nekk nekkuma ci ay combat personnel damay xool foo xam ne fu sori la nekkuma pour fan ma samba wala fan ma demb fii amul kuñ fi war a fan. kenn lañ war a fan muy yàlla. yàlla moo jar a fan moo jër a gëm moo jër a wóolu. la ca des na suñu dëkk pour liggéey ko pour am ay ndam wàcc. ku ci nekk ci ñun liggéey ko pour am ndam. am solo waaw loolu rek laa bëggoon dellu si nag pour nga ñëwaat sa question bi. d' ci nga xamante ni ci wàllu baatin moom nga jàpp ni ëllëg war naa mën waaw si côté boobu noonu. 2024 ci ku war a nekk président lu lëndëm la. Mhm. ndaxte soo xoolee Sénégal nu mbir di demee nii. Mhm. pour nit ki génnee wax ne diw dana nekk président maanaam yow kon xamoo dëgg-dëgg lan mooy baatin. amoo tamit lan mooy analyse politique. ndax ku xam ne depuis mille neuf cent soixante ba léegi ñi ñu fi xamee woon ci politique yëpp ñii màggee nañ ñii dee nañ. mën nga ñoo wax kenn moo ci des muy président Macky Sall. dafa am beneen mouvement politique buy juddu bees. Mhm. Ousmane Sonko ci la bokk. Pape Djibril Fall ci la bokk Abdourahmane Diouf ci la bokk man mii ci laa bokk parce que am nañ suñu mouvement ñu ci léegi keneen ak keneen ak keneen keneen mi ngi ci. pour bañ nekk fi tudd tur kon réewum ëllëg bi dafa lëndëm ci wàllum kan moo war a jiite réew mi mhm. Macky la ngi ni moom mi nga war a dem 2024 mhm. ñim àndal ba léegi waxul leen ne la damay dem 2024 mhm. ñii ngi taxaw ne Macky Sall warta am troisième mandat te nag man mii suñuy weddi troisième mandat ci la bokk ba léegi ma confirmé ko mais ci wàllu yoon mais yoon daf ko may mu présenté wu dafa xam nga fan la dooree gars la ma jël seen xel moo mooy si parrainage ba. heure bu nekk maa ngi toog si biir opposition bi loolu sax ma mer di leen wax yii ma leen wax yëpp surtout yeewu askan si la bokk membre laa ci depuis bañ commencé di indi ay problème parrainage parce que ñoom ñoom ñoo ndëkk nekk cuune. yeewu askan bi waaw parce que parrainage ba mu ñëwee ñi def assises nationales yi parce que ñoom dañoo ànd si parrainage bi ñoom politiciens yu mag yëpp lu ñu bëggoon yëpp mooy éliminer politiciens yu ndaw yi. Mhm. moo tax ñu d'accord si parrainage bi. Mm-hmm. te parrainage ba mu ñëwee ñoom la njëkk a fëgg seen rëq seen seen digg. Mm-hmm. kon loolu dafa Sénégal war na am parrainage mais pas nuñ koy doxaleen ndax Sénégal ku ko xam. dëgg-dëgg mm-hmm. ay institutions yu dëgër dëgër wit amagut. maanaam nit ñi amaguñ maturité boobu noonu. institution yi amagut ko comme lañ war a def mooy balaa ñuy dugg ci ay woote ay loi yoo xam xamuñ ko nañ ko jàngat daf ko ci ay olof daf ko ci séeréer daf ko ci joolaa daf ko ci lépp langage yëpp. tas ko jox xam ko. mais xam nga ne askan bi suñ xamoon li est-ce que danañ ko voté. kon politiciens yi fañ leen xaar seen liggéey dafa sori te dafa yaatu nañ ñëw ci loolu loolu lañ xaar ci ñoom. bu ko defee ci baatin kon lu lëndëm la. kenn xamugut. waaye waaye surprise yu bëri daan ci xew. pourtant ñëpp jàpp nañ ne fi mu tol nii benn leader rek moo fi nekk ko war nekk président muy Ousmane Sonko. waaw loolu ñoom dañoo baax rek Ousmane Sonko moom rek mooy Sénégal. mais moom rek moo fi opposé wu comme koo xam. Oh, waaw non moom rek du sénégalais nañu wax dëgg moom bëgg na ko. bëgg na koo doon am na ñu ko ngemb yaa ngi dégg est que ngemb googu noonu dafa am ci yoon booy jaar ba nekk président président da nga koy nekk par force si force nii. Mm-hmm. si mbedd mi ngay doon président da nga dem élection. danañ la voter danañ compter ba yóbbu la palais ñi ne wii wii wala dañoo bëgg a def coup d'état wala lan la. Mm-hmm. xam nga loolu mënta am faw si élection lañ mën a jaaree. ku mel ni euh, kii nu mu tuddati Abdourahmane mhm. bëgg na doon président. Mhm. ku mel ni euh, keneen ki Pape Djibril bëgg na doon président ku mel ni keneen ak keneen Sénégal Sénégal ñëpp la. Mhm. moom nag la yàlla jël biddiwam jitoo ko ci kanam Karim Wade mi ngi ñëw. Khalifa Sall mi ngi ñëw te ñii ñëpp ku si ne da ngaa bëgg doon président. te ñooñu sax ñoom ñu ngi ànd di xëy di ragante ay ki mais kenn gëmu kenn gëmu sa bu dara desul lu du xaajal ko dam ni dam sa yoon dangay ngay dam yoon. kon nag maanaam Sénégal danañ gis surprise yu bëri. Mhm. te am na gan guy ñëw. Mhm. ci wàllum politique. Mhm. waaw te dana am politique politicien boo xamante ni bu siiw la bu ñu bari di wan gannaaw ci 2024 bii. 2024 bi incha allahu taala loolu ma gis la. d' accord am na solo. Mm. ma ñëw ci wàllu ubbeeku tey. nga gis ma gis nga samp ci ay entrepreneur mm-hmm. ñoo xamante ni tey yàlla sunu borom dimbali na leen ci réew mi ci bitim réew. ba ñuy defar bay defaraale ci wàllu ubbeeku. waaw xam nga de àdduna àdduna Euh, li ñu fi indi mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla bi nag lekk yi si bokk. takk soxna yi sila la bokk. oto yi rafet yi kër yi yëpp si la bokk. te yëpp mooy wàllum ubbeeku. loolu ku ko bëgg nag faaw nga am noo taxawee pour mën ko am. ndaxte su fekkoon ne doole rek. mooy maye alal. wallahi maçon bi kenn du ko ëpp alal. waaye mbir yi dafa am loo xamante ni da cee laxasu. Mhm. xel ci la bokk. baatin gu nëbb ci la bokk. Mhm. mooy am ñaan koo xam dafa am tawfiq billaahi. Mhm. tawfiq billaahi la lu koy maye. Mhm. mooy ne ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na addu'aa silaahul mu'min ñaan mooy armement wu bi gëm yàlla. nit su demee ba jaale. na téye ñaan su fekkee ne munu téye kurusam na xool koo xamante ni kii kuñ am yaakaar la ku sell la mu dénk ko boppam mu ñaanal ko. lii tax nit ki war a ñaarlu parce que nit dana dem ba yii yëpp ma wax tëju si boppam bi dootu xamati li muy def te am na ñu yàlla may ñu mën a ñaan ca yàlla ndax nit ki foqatiwut yàlla ngay ñaan yàlla boo ko ñaanee mu may la yàlla na dafa am ñoo xamante ni comme nu buur yi amee ay directeurs généraux am ay directeur cabine yàlla noonu la amee loolu ku bëgg yàlla may la da ngay jaar si jaaru kaayam yi yàlla may la mhm. lii suñ koy wax nag ñi nga xamante ni dañoo jaaxle moo wax na am na ñoo xamante ni suñu amee dañuy beew dañu naan ah sëriñ dañuy wax rek waaw lii daal parce que ñooñu dañoo beew mhm. di bëgg a tas yaakaar ñeneen mhm. mais bu bàyyi loolu ku ñàkk fayda mhm. ñu gëm loolu loolu aji daf ko sa bopp mooy yow yaa amut fulla rek jugal nga ñaanu donte ne sax boo demee tey su ma teewoon cent milliards jour boobu laa gën a mën a ñaanlu pour yàlla di ma yokk ndax du doy boo amee ay milliards da nga ci dimbale jaamu yàlla yi da nga ci dimbale néew ju doole kon am-am loolu lay jëriñ du ko pour nga am yow xaalis kase am benn oto am benn kër pour yow kase bëgg nga soo amee kër nga wutal nit ñi ay kër. boo amee oto nga jënal nit ñi ay oto ñu mën seen liggéey sax di ci dawal. di ci wut sutur di dam jox seen waajur yi. kon am-am loolu lay jëriñ. nit na su ko bëggee nag am na ñaan yoo xamante ni la ma waxoon rek. tool nañ si jamono boo xamante ni. mbir yi au lieu que ñu teg ko ci route national bi dañ koy teg si APS bi. Mm-hmm. waaw am na ñaan yoo xam ku ko xam. tayu la loo war a def dix ans pour am ko mën nga ko def si un an wala def ko si benn weer wala def ko si fukki weer juróom pour am ko. loolu nag baatin la koo xamu xamoo ko. foofu laa si mm-hmm. d'accord ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu seet. seet moom mën naa ne tey mooy portu ñaam. Mm-hmm. ci yan anam la ñuy seetee. waaw seet nag dafa am ay façon seet yi am yàgg naa fi wax si wàllum seet am na ñoo xamante ni moom dañuy mbali la lii di wax rek ay mën naa lii mën naa naa mais seet am na seetu ndox. seet mhm. suuf am na. Mhm. waaw seet boo xamante ni mooy ram tim ñu koy dégg mooy seet suuf. Mhm. mais dama ne seet yooyu yëpp am na seet bu ko gën a yéeme mooy kashf ak seet bu ñuy wax kii dafa am basiira. dafa am basiira mag ñi dëgg loolu lañ doom ñaan yàlla. mooy am kashf ak basiira kooku tey moo mun a taxaw léegi xool benn daw mi ne kii dina doon waliyu kooku moo mën a gis léegi benn nit dox mi ne kii. Uh-huh. dana doon milliardaire balaa nangam. Uh-huh. parce que daf koy yàlla daf ko koy wax daf koy xam melokaan yu mel noonu. Uh-huh. kooku nag dafay xam nan lan mooy nature doomu aadama. ndax doomu aadama dafa am nature. am na nature boo koy gis léeg-léeg nga gis nit daf yëfi dof nga ne kii xanaa rab da koo dugg wala jinne da koo dugg. parce que dafa melokaanu melokaanu jinne ak rab moo tax nga wax loolu. am na kuy melokaanoo melokaan nitu aljana da naan kii nitu aljana xanaa xamoo gis ñu bëri dañ koy def mais am na ñoo xam dañuy gis mais duñ si am certitude. Mhm. mooy duñ si am yaqin. Mhm. foofu la différence bi am nag. Mhm. kon koo xamante ni dafay faral di liggéey tudd yàlla. yàlla daf koy may li muy gis daf ci am certitude. da ci am yaqin. mais bépp doomu aadama bu yàlla sàkkare day gis. léeg nga gis noonu nga mën a gis ne kii ku baax la. noonu nga mën a gisee nii ku bon la. waxuma nag nga teg ko ci njort déedéet. gis ku baax ak ku bon duñ ko teg ci njoort parce que foofu boo fa misaalee affaire bi rek mooy da daanu. comme su ñëpp ne diw mii baax na ñëpp ne baax na comme exemple tey bu nee ñëpp ne Ousmane Sonko baax na parce que moo xew actualité la xale yi li ñuy wax ku bañ Sonko sànku ku ko bañ naafeq nga est-ce que est-ce que loolu yoon la ah est-ce que nit ñi dañ koo bañ réellement déedéet kuy bañ nit amut nit dana bañ nit ki ndax jikkoom nit ki du ànd nit ndax ni muy defee gone Sonko ñu bëri duñ ànd ak ñoom lu tax parce que dañuy wane ne ñoom ñoo xamadi dañoo yaradi moo tax ñenn ñi duñ ànd ak ñoom. Mhm. est-ce que da ngay wax ku ànd Ousmane Sonko rek da baax ku ànd ak moom rek wëliyu nga loolu loolu du nattukaay bi. Mhm. nattukaay bi du foofu. Mhm. du si mbooloo. bu àddina bi yëpp dajaloo woon ne kii moo fi gën. te yàlla waxu ne yaa fi gën doo fi mos gën. su àddina bi yëpp dajaloo woon ne kii gënul fi. te yàlla wax ne yow yaa fi gën yow yaa fi gën. yàlla mooy décider ku gën. yàlla moo xam ku baax yàlla moo xam ku mën. ñun luñ mën rek mooy di sabablu kon nañ bàyyi di jiitu yàlla ci ay mbiram. Sénégal nag yàlla na ma yàlla baal mais bokkaale bi dafay bëri dañuy jiitu yàlla ci ay mbiram. mën nañoo def lu nekk mais buñ di jiitu yàlla ci ay mbiram. nañ ñaan nañ sabablu nañ bëgg lu baax nañ ànd ku ñu neex waaye buñ jël maqaame yàlla yëpp du ko tappal nit nit amul loolu. yàlla moo am lépp moo mën lépp moo xam lépp te nag kum ko jox nag ah ci yàlla la ko jëlee rek. ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu samp xam naa fa laay a jeexalee. Mm. Euh, ñi jëm ay élection mm. waaye wàllu samp nga am ci secret man moom. Mm. <laughs> waaw su ñuy dégg roi des arènes sax kenn dootu ko laam laayee mais parce que gis nañ vidéo yi. wallaahi wàllu wàllu samp wàllu samp nit. waaw samp moom bu ñu ci wax am na benn samp boo xamante ni ci guy lañ koy def. xam nga guy. Sénégal fii ku xam guy ku ñu wax ne daggal <laughs> daggal guy. du ko dagg. doo xelaat mukk wala da nga ko tuural ay sarax tuural ko deret mm-hmm. daf ay sacrifice doog a dem dagg ko. mën mhm. na samp yoo xam ne su góoy lañ koy def képp kuñ ko samp xam nga kaaraange mooy lépp. gis nga kaaraange boo ko amee ba samp ba dëgër kenn mënu ci yaw dara. kenn mënu ci yow dara na yàlla sampee woon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam si biir yéeféer yi nonu la lay kaaraange boobu di la sampee na yàlla sampe woon wali yàlla yu baax yi noonu la lay kaaraange di la sampee kenn mënu ci yow dara waaw nit mun na laa pexeel mun na laa naa waaye yàlla daf lay samp kon samp boobu kaaraange boobu incha allah képp ku ko bëgg mun nañ see jëflante ñuy baaxee wante si rek ndax yooyu yëpp ci mbir yi ñu yàlla may tey ba ñëw ci li nga xamante ne jamono ji sonal nañu bari ñi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi mm. mu di wàllu papier tey nga ci liggéey anam boo xamante ni mm. yemul sax ci bitim réew dong ñi nga mm. xamante ni dañuy déposer ay liggéey mm-hmm. wala dem ambassade ñu leen di rejeté ci wàllu papier waaw wàllum papier balaa boobu sax parce que man fan yëpp dafa am ay ñu nekk bitim réew ndaxte ndeysaan man yàlla dafa def damay am ñeewital ci ñoom parce que bàyyi sa dëkk dam si dëkk jàmbur dafa daan doole. dafa dafa daj yenn métit yi dafa métti trop. ngay gis ay mud-mud yoo xamante ni mm-hmm. dañuy takk soxna sax jël ko yóbbu ko foofu noonu soxna si dam woor leen. Mm-hmm. nekkaat ci leneen. loolu nag képp ku ko bëgg gis nga nit soo amee sa tool da nga koy aar. Mm-hmm. lu ko moyul dana am benn golo bu jógee koo fa dugg sa biir tool gannaaw tool yàqu ba. nit da ngay préparer sa bopp sa bopp. kon loolu ñu ngi leen ci bàyyiloo xel beneen bi mooy kayit doomu aadama am na lu ma waxoon ci kayit am na ku war a tukki jaaree ci avion am na ku war tukki jaaree ci avion am na ku war a tukki jaaree ci ndox am na ku war tukki jaaree ci ndox am na koo xamante ne dafa tukki jaar ci suuf te yu bëri duñ ko xam am na ñu dem ba bitim réew am nañ fa kayit ñu ngi liggéey waaye mënuñ am dara am na ñoo xamante ne ñu ngi fa nekk di am xaalis mais amuñ kayit kon lii yëpp képp koo xamante ni yàlla nattu na ko ci lii ah nañu jéem a gis wala ñu jéem a jokkoo ñu xool na lañ si jaflante si kàttanu yàlla. am na solo. Hmm. fi may jeexalee mu di wàllu kàddu hmm. kaddu nag ñu ko waxee mooy kaddu ci biir kër. Hmm. ñi nga xam ne dañoo ñàkk am kaddu ci seen biir kër. waaw loolu tamit nag mbir la sekkara la nit su bëggee am kaddu ci biir këram ndax xam jamono ji dafa doy waar nit dangay ngay tabax sa kër yor sa kër yar fa ay nit waaye mënoo leen wax dara bañ dégg ko. bëri na parent yoo xamante ni loolu mooy seen problème te duñ xam problème bi lan la. problème bi nag mooy gis nga jinne yi dañoo bëri shayatin dañoo bëri. Mhm. te dañoo wàcc si kaw suuf infiltrer ndaw ñu dugg leen. Mhm. di leen jëx-jëxal di leen def loolu moo tax ndaw ñi kenn mënatul wax ak ñoom. Mhm. loolu jinne ak shayatin yi dañ koy def. kon boroom kër bu bëgg a téye sa kër. moom sa njaboot am si ñoom kàddu mënoo leen moom sax na yàllaa leen moom am si ñoom kàddu nga wax leen ñi def. dafa am baatin booy utiliser de. loolu nag baatin la. ku ci jëflante ak ñun incha allah danañ la wax secret na am na loo xam teggin mayewul ko ñu wax ko si caméra. am na solo suñ ko defee ñi baaxa ñi baaxee la ko rek su ko defee nga dem utiliser ko sa kër. ndax kenn bëggul am sa kër. dem bam yàgg muy tas xuloo yeeg. xiiroo ngay yooyu noonu yëpp. te kër na dëgg-dëgg góor moo koy yor. góor bu fi jéemut a yor këram ah boo mënta takk ndigg la rek nga bàyyi jigéen bi takk ndigg la rek. loolu moom ñu leen koy baaxee rek. am na solo mu ngi noonu moo mm. nekkoon sama gan fii. Mm. mu di Cheikh ba borom solution. Mm. adresse bi mu ngi noonu ak numéro téléphone bi boo ko soxlaa mën ngaa jokkoo ak moom tey euh, sa kàddu mujj ci émission bi. waaw kàddu kàddu gu mujj gi rek mooy dañuy ñaax. ndaxte lu ay di jàmbat. ñaax bi mooy yëpp dañ koy def si askanu sunu gaal. Mm-hmm. ku la neex mën nga ànd ak moom ci wàllum politique. Mhm. waaw parce que tey jii nii foofu lañ toll tension yi jug nañ. Mhm. dëkk bi ñëpp a mer. Mhm. kenn kontaanut. lu ko waral mooy na àdduna dafa jaxasoo. àdduna su jaxasoo nag ndaw bi mooy ko xamante ni moom moo ci gën a nekk victime. te ndaw boobu noonu moom lay waxal. yow ndaw bi yow sama rak yow sama xarit yow sama jarbaat maa lay waxal àndala ku la neex. àndala politicien bu la neex. mais bul ànd politicien ndaxte da ngaa bëgg a jox sa bakkan ab politicien politicien jaru ko man mii di wax ak yow benn politicien jaralul ma may génn di def naka su dul noonu mën nga ànd nag ku la neex koy àndat na nga fexee ànd ak moom ci programme bu dëggu. programme bu leer ndax kooku noonu boo àndee moom ci loolu ëllëg si loolu lay respecté. Mhm. sa xarit yow boo xaritoo benn nit koo xamante ne respecté wu la mais kooku jaru ngeen xaritoo. xaritoo dafay ànd ci ki ngay xaritoo mu respecté yow nga respecté ko. te am na loo xam dañuy gis politiciens yi di ko def. Mhm. respecté wuñ seen population. ñun loolu lañ leen moytuloo saa su nekk nekku na dañ leen a bañ wala nekku non non non amuñ kii boobu loolu nekkul seen xol bëgguñ loolu luñ bëgg rek mooy mbir yu baax. Mhm. dañoo bëgg Sénégal gi naataange gi fi nekk ñu jëriñoo ko ñu wax pétrole. Mhm. wax gaz. wax zircon wax lu nekk. mais loolu lan moo koy jiitu pour ñu mën ko jëriñoo mooy ñun suñu bopp ñu jéem a am xel. bañ kenn du ñu nax wala duñu ñu utiliser. kon foofu rek la ñuy ñaaxee ndaw ñi. di leen wax nañuy faral di daf ay istixfaar. Mhm. ay salaatu ala nabi. Mhm. ndax loolu dina yombal loo xamante ni dafay ubbi seen dënn. Mhm. te nit su dënnam ubbeekoo rek. xelam mën a ubbeekoo. waxuma la nit daana la nax de waaye nax la du yomb. am na solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi. jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun di ñu suivre moom rek mën ngaa jokkoo ak moom ci numéro yooyu noonu di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.